الله يا من لا إله خيره يا من يجيء لي دواما خيره يا الله يا من لا إله خيره يا من يجيء دواما خيره سل وسلم سرمدا يا رحمن على الذي استجب رجالي سؤالي أنت الرحيم الملك القدوس Assane Ndiaye sëñ Assane Ndiaye mu mel dañ la fekk fii ci gàddiyal nga xamante ni si gu mag gi nga xamante ni si xalif gàddiyal da koy def sëñ Mourtala Amma yu mel yow dañu ñëw fii ci waañ fekk la fi ngay responsable bi ñu xam bi naka la waaw ngi leen di bu baax baax di leen sant bu baax ci teew gi ngeen fi teew di wax ne waañ mi xidma moo fi ne xidma mooy liggéeyal sëriñ bi liggéey jëf jël ñaq jariñu waañ wi nag démb ba léegi ñu ngi ci liggéey bi di ci góor góorgóorlu suñ kemtalaay kàttan ñi nga xam ne kenn ku ne la nga man rekk ñu féetale la ca ngir liggéey bi lépp sot waaw loolu ren mi ngi ci juróom benn fukki at mooy ci la nekk ren at mu jot nag ñooy ne ci waañ wi ne ci liggéey ba liggéey bi yemb ñu yegg ci sëriñ bi sëriñ bi ñaanal ñu ñu daal dellu ci daara yi. chaque année benn programme bi la wala chaque année da ngeen di changer ay programme déedéet at mu jot euh, ci janvier bi lay doon ci lañ koy jàpp du ko génn at ba at lay doon rek ñu daje fi ak mbokki taalibe yi. ak mbokk diine mbokk lislaam yi ñëpp ñu buñ fi dajee kenn ku ne la nga man rek ñu féetale la ci ñun nag dañuy féetale fii ci waañ wi ñu ànd ak euh, donga yi doon seen jëwriñ ñu bokk di liggéey ci waañ wi ba liggéey bi yemb ba xam ne ña ca biir ak gan ñi dañ ci mën a jëfandiku bu baax a baax a baax am مؤمن مهيمن أدعو بها وإنني أهيمن أنت العزيز رب والجبار لك علي الحمد والكبار يا متكبرا له تكبر tey euh, dañuy sant yàlla bu baax di julli ci yonent bu tedd bi di sant sëñ Bamba di ñaan ci barke Cheikh Mor ma yàlla muy sunu ma màggal ndax màggal gi Cheikh Mor Faarima ko moom yàlla dogal ki nga xam ne mooy sunu xalifa di sëriñ Gumba yàlla yàlla yokk leeram sëñ Fàllu jaar fi yàlla na yàlla yokk seen leer ba mu dellu siwaat nag ci caatum sëriñ moor Mor Faarima muy Cheikh Mourtala mi nga xam ne nag moor Mor ma moo ko jur ba pare Cheikh Mourtala yar ko ñu tuddee ko Cheikh la mu yar ko ñuy magal magalu Cheikh Mor farima naka ngeen gisee magal gi ni nak neex na wala. magal gi tabarakallah damay wax dama koy wax ni ko magal goo paase gi nga jëm koy dakh ndax lutax cheikh Cheikh la dafa am luko dal ba paré mu nangoko yalla dafa dogal muy kilifa go nga xam tabarakallah ñepp ko bëgg ndax lan jikkoom ndax lan eh, doom adamam ndax lan fumu fekk euh, dom aadama Cheikh murtala jox na la sa njukkal jox na la sa cieur magal gi bo ñewé tay ñepp nga fa fekk tabarakallah machallah allah ñu diko sante yalla suñu borom nak di ñaan ci yalla yalla nako yalla may fanu gudd wu and ak wër mu sut magam yi fi jaar aw fante de sa barké ki nga xamni moy soxna Penda ñu jox ko Cheikh murtala nak mu bokk Cheikh murtala nday ak bay mu yoré ko muy khalifa di magu seigne murtala ak matu amar ak ki nga xamni moy ami Touba caat ni yal yalla guddal sen fan wa xam nga ñaan yalla de bo ñango mom la jël borom ndax yaayama ma ñaanaloon ni ma yaa dem maangi dem makka yaangi may taxaw yalla nga dem makka ba doyal maangi sama fukk acc ak ñeent ye sen yaayama ko ñaanal khadima ant mi jur cheikh Murtala mi togg dong nak di sama ta nga wañu cheikh Murtala nak waaw man de lu ne maa nga ci togg naa ceebu yàpp togg naa ceebu jën togg naa laaxu bisaab mis yu naa def naa ginaar xanaa lii doy na waaw kay yaa ma ko laaj kon nag laka alayhi alhamdu wal kubbaaru yaa mutakabbiran lahu takabburu ndak mbay ñu fekk la fi ci waañ wi nga xamanteni ne si dafa melni responsable nga ci naka ngeen di dundé waañ xana bëgg rek lu señ xadim wax rek ñu def ba suba ñi ngi juggé ngaay suñu jëkkër di talibé señ xadim ñun ñi daayira lañ juggé ngaay waye fi ba suba rek nañu tégg di tégg rek lu mu wax rek ñu def bu melni magal gi da ngeen fonk waañ wi torop de ren la ñaata mbé édition man nak japp ma ren la ñaata émission wé at mu nekk ke suñu mamé ba tay at mu nekk ñu ñëw di ko defee nii sunu maam ngaay la daan togge ay mbana ba mu yegg mu teg ko ci oto indi ko gàdd gii jox ko sëñ Mor Faalima naka ngeen di dundee waañu nag metti na wala mettiwul metti na mais lépp rek sëñ Faalu rek ñun cant lan ko def lépp rek sëñ Xaadim Amar rek ak sëñ Gumba baayam metti na nag moom waaye nag noonu lañ koy continuer ak ñoom. mu ngi ne ñaanal sëñ Xaadim gudd fan ak wér gi yaram dara bañ koo dal. Nek ci sunu kanam moog seigne mutala dara bañu leena dal lol la ni ñaan. mam Thierno Diouf waaw waañu tubarkala gis nga bagage yaa ngi ni gaa yaa ci togu yi ñu ngi ni di saf ginaar yi euh, dembu defar na 40 ginaar tay bima ma def na 100 ngi di saf pareguma michu yaa ngi fi gaa yaa ngi togg soos bi ni nga góor yàlla ñu ngi ci ci ni euh, mom fi machallah waaw waaw gis nga moom waaw xam nga maanaam moom da euh, saf loxo moom ci jigéen lañ ko tàmm waaye daa xas nekk ci man waaw kudd daa réer ci saa loxo loolu la yàlla dogal waaw yu baax baax yi moom maa koy def bu ma misuwee nga ne waaw ma ma saaf nga ne waaw bu ma bu ma ginaaree ba teg nag moom lépp daal di pare waaw gisoo loolu waaw waaw xoolal ndeysaan boo xoolee nii rek daal di xam ne bii ne kay lii moom tubarkàlla macha allah waaw jigéen baax na waaye góor it baax na surtout maa góor gu dégg daaj moo ci rawati te man Baye Fall dama dégg daaj waaw mu yag ci wér lol yag ko man yag ko fekke ñun talibé yi ñu yag ko tal yag ko fekke waaw ndax lu way def sa bop kenn deful lu la mooy ca liggéey Serigne Touba rek mo fi nek kon ñu ngi sant ñep di gërem ñep di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi بصير يا خير مجيب الدنيا حكم يا حل اللطيف يا خبير rahmatullahi taala barkatu ñu ngi leen ziaré bu baax baax di jox kenn ku nekk waccu ayam di am mbekté ci dajé bi nga xamné ne at mu nañu daje fi ñun ñi xamné ñoy talibé ñooy taalibi sëñ mutulaay Touba dekk ak mom mu nekk jëm jo xamné ni mom talibé ko doon jox waye mom moy liggéey di jox talibé yi ndax yalla dogal na nekkul magalu gadd rek même magal Touba ñiko ko ñepp kenn ku ci ne lay nekk sa kër mo la koy jox kon mom aw yoon rek lay wone ndax même daara bi fi ne sax da nan bu ngeen dajalee ba mo ken indil ko ci am aajo nañ ko ci fajj nañ ko nañ nañ ko ko jox lool nak moy liggey seigne sëñ ki de Njaga Njaay lañ koy wax don talibé seigne sëñ nek fi ci wañ bi sunu yaay la mo nek jorun ju jigen ji ma nek jorun ju gor ji waaw niñ ko dundee dal moy bu ñëw ci wala magal ndax dañ ñaan def sax bu ñëw ci wala magal dañuy fanaan pekes fanaan fanaan ci fu ci fuur yi ay xar ba fajar indi ko fi ndax seigne bi yalla dafa dogal ci biñu fi, togg fi dina ci boole ndawul xar boole ci ndawul nak boole ci ndawul ginar té nekkul ne fi rek la togg manam fi ci kanam dut boko demone bo boo fi fi, ci ngéwél gi ni ñu koy défé fi non lañ ko défé fofu té lépp après dañu wat ci bir kër sëriñ bi te yamalé ko fofu ndax mbolam dëkk bi kenn ku ci nekk li ngay wo ci walu xéewal mom mo la koy jox mo xam ndawal la ak lu mën ak lu mëna andal sëñ koy jox guddu fan lañ ko ñaanal ak wër ak man ak fekke ndax tey ñun ñii amul kenn kuñ ci sas ne la at mi indil ma nangam amu ci daf ñoo bàyyi ak sunu sunu sunu sunu sunu dañoo bàyyi sunu yittee bopp maanaam lépp la ci war ci bis ba moo ko jëf ñun defuñu ci dara même oto bi ñu indi fii sax moo koy fay yàlla xam na ko même oto bii nga xam ne ni moo ñëw fii ci dëkk bi oto daayira bi moom moo koy fay ci xaalisam kon ñun yaakaar naa sëñ bi ñoo ko ameel waaye ameeluñu dara ndax bari na ci kër yoo xam ne dañuy sasaate at mu ne nañ may indil nangam wala jëruñ ju ne na nga joxe nangam waaye loolu amu ci lépp lépp lépp sëñ bee koy def ñun daal dañoo bàyyi ci suñu sago ñu doxee nu ñu neex waaye tamit ñu di ko sago fu ne ndax tey bari na ñu ñu ñëwee ci ni ñuy doxee maanaam tey boo fi liggéeyee fii dara du fi jeex te li muy bari bari bari lépp moo koy jëf yàlla xam na ko fan wu gudd rek lañ ko ñaan ak wér ak tal ak fekke di ñaan tamit yéen ñii fi ñëw ren bu déwénee bi ngeen ñëw yàlla na yàlla na gën a yokk Sëriñ Tuubaa mën na ko yàlla na ko def jërë ngeen jëf xakamu yaa xalul latiifu yaa xadiir xaliimu yaa xasiimu innaka alxafuur sakuur yaa aliim yaa kabiir laka alayya sukru wa takbiir xafiis yaa muqiim